ci réew mii ñu nekk man nag dama ne woon réew mi moom man dama cee amul sax yaakaar ba def naa ne ca jamonoy asuraak tey bariwul sax lu ma ci wax waaye màggal gi lay gis ne mënuma cee ñàkk bàyyi xel ci réew mi tuuti ndax màkk màggal gi day xéwalu réew mi te màggal gi dafa am lu lu mu lëmb ci biiram Eh, lu mu lëmb ci biir ci biir ci biir màggal gi màggal gi dafa am loo xam ne soo ko toppaatee ba ci biir dañ koy fekk li ñuy wax njéggal waaw dañ koy wax njéggal ndax borom màggal gi li li fii di rey yëpp alis ma ko doon solo nag Duudu ma Mbay ak commandant nangam ak fédère bu ñoo mag ñi mel ni ñoom ñooñu ñëpp bi mu ñëwee ba toog bi ñuy waxee sëriñ bi dana leen man jéggal naa leen ñoom ñëpp jéggal naa ba jéggal ñi nga xam ne sax dañ ma daan def te di ma mu ne ñoom ñooñu ñépp daal mu ne ñoom jéggal naa leen mu mel ne nag loola nit ñi dañ ci dañ ci dañ koo siiwee rek ci bi muy wax ne xafawtu anil ahda yi turan dafa siiwee boobu waaye bari ci xaside yi fu mu ñëwee nag ñëw ca loolu mu mel ni màggal gi daal dafa dëppoo kaddu njëggal boo xam ne da koy am kon dafa mel ni réew mi fi mu toll bu ñu seetee mbirum màggal gi màggal gi ginnaaw boo seetee tawféex yi yëpp yi am ci biir njëgal daal da ci am solo lool te sëriñ Touba nag njëgal lool yi dafa doonoon message am moom ci ay mbindam yëpp ci ay waxam yëpp ñëw ci xaside yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne boo ko jàngatee rek njëgal da ci am solo mel ni nag réew mi fii ñu toll dafa am nëx nëx dafa nëx parce ñëpp bu ne dangay dox di dem nii waaye. ak mbandu pétrole la koo xam ne fi ne dañ ko teg ci digg naaj wi mu mel ni saa ne yow da tiit rek ne waxtu wu ne lii mën naa takk lii moom mën naa exploser waxtu wu ne mën naa def explosion boo xam ne ndax xol yi la ci xol yi te nga gis nag ne moom mii yor màggal gi moom dafa jéggale lépp jéggal ay noonam jéggale lépp kon tax na fi mu toll nii réew mi liñ ciy jaaxle ak liñ ciy tiit yëpp mooy nañu dem nag dellu ci njàngalem sëriñ bi dellu ci njàngaleem sëñ bi muy sëriñ bi moom njëgal rek saa su ne itteem la woon jéggal ñëpp jéggal ñëpp tubaab yii luñ ko defut amut itteewoo di ko rey di ko rey boole kook ñoo xam ne dañ doon jëf ci kawam di jëf ku dem ci jasaawu sàkkoor boobu gis duuduma mbay moom la mu doon def nga dem gis alis moom la mu doon def nga gis sëñ bi natt ñaata yoon lañ koy natt sax teg fital di ko di ko natt rek di tiire ci tiire ci kawam yooyu yëpp nit ki di ko dund te terewul moom bi mu paree ba pare ci loolu daf na ñoom ñooñee ñëpp jéggal naa leen kon lii dimbali réew mi fii ñu toll mooy jéggale nanu jéggale nag waa jéggale boobu nag moom la ñuy laaj nag ci réew mi ndax jéggale gi kese kese kese fi mu ne moo mën a indiwaat réew mi jàmm ju stable stabilité bi ñuy wut ci jàmm yu réew mi njëgal gi rek te loolu nag mënu caa jiitu lu nu président de la république bi yor réew mi Macky Sall mu jéggale te tax waaye waaw ah, moom mu jéggale te yàlla tax waaye moom bu jéggalee tamit ah ñi nga xam ne da leen a fitnaal ñoom it nañ ko jéggal waaw ñoom it ñu jéggal ko bu ko defee nag njéggal googu nag bu amee ci diggante bi ñoom ñu jéggal mag yi ah moom mu jéggal leen ndax Mandela mi kat jaaroon na ci jafe-jafe yoo xam ne ak la ko waa réewam daan def te moom ba mu génnee ci loolu dafa jéggale ndax ñoom ñi ñi bëgg a yor réew ak ki yor réew ñoom ñëpp ndax waroo nekk di wut loo xam ne njariñal Sénégal la ba pare fitnay réew mi di ci nekk kon ñoom seen boppit njariñ damaa jàpp ne ñoom ñooñu ñëpp ay homme d'état lañ ndax état képp ku koy wut rek homme d'état nga ñëpp homme kon opposition moom amu ci kon ñoom seen bopp noonu ñoom ñooñu ñëpp conquête du pouvoir rek dafa nekk muy xëccoo gi daw wuti ko waaw daw liggéey wuti ko moo fa nekk bokk bëgg-bëgg te li defe naa bëgg-bëgg bi poosu kenn taxatul ci ñoom ndax buñ gisee nag liy xew ci jamono yëpp defe naa ne fi mu ne léegi poosu kenn taxatut kon nag nañu dem ci jéggale ñu jéggale ji nag te dindi eh, ñoom li ñuy dundee ñu tuddee ko pensée unique mooy kenn ku ne ci politiciens yi boppam rek jàpp ne ay waxam a gën waxi moromam jàpp na ne moo gën diw kenn ku ne daal sa bopp rek ngay gis waaw waaw nañ dindi loolu nañ dindi daal ku ci ne tañ teg nag réew mi nañ teg réew mi nañ teg senegal teg njariñal Sénégal yi waaw bu ko defee loolee nag buñ ko defee nag tënku ko ñoom ci tënkin yu war mat a tënku loolu dana dimbali réew mi ñooñ dimbali